sayidina wa mawlana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dhi al habli al matin wa ala man iqtafa athaaruhum ila yawmi ddin bokk jili di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu wa taala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 bañ ba ñu wommatoone ci ndigale yàlla loolu wattal laxoolil jabin jooju mooy xam nga dafa xalaatal baay bi na ko ba may rey ba may rendi na nga dëpp sama xar kanam ci suuf si ngeen nga bañ ma jàkkaarlu sama kanam yërmande la daa dat man ba tax doo def defe ndigal yàlla mu doon dafa dëpp xar kanam ci suuf wattal laxoolil jabin fas yéene jëfe ndigal suñu borom suñu borom daal koy jot jot yi nag mu ko jot ci am kuy mu bàyyi ko ci na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 defal nangam walla bàyyil nangam te saa su imaan wala pas-pas dëgëree ci xolub ab julit loolu moo ko yóbbu ci wombatu saa bu ndigal lotee cër yi dañuy topp xol ba ca wombatu ci jëm ci ndigal loole ñaari dañ ci jàng itam yërmande yi sunu boom ci ab jaamum yërmande ji yàlla sunu boom yërëm ay jaamum dañ ko ci jànge ndax bi bi xamee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 إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول sunu يجعل فلا حي على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 bay sox-sox bi mett bu ba ànd ay moroom yi di ko raw du doy ci tabaski ni ko noonu gàtt bu yooyu lool ba amul dara ci garis du doy ci tabaski mboolem ay bi yëpp dañ ko ci moytu gàtt boo xam ne dafa dof dof bu dof bu leer nàññi du doy gàtt bu lu mooy bunta miyam du doy gàtt boo xam ne nopp dafa tuuti lool du doy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 te ku ne xam na jëfam du ñu nangu la moom waaye itam dañ ce moytu itam e, lekk am ñoo xam ne bu ñu sëlmalee rek dañu daal di gaaw yàkkamti gaaw dem àgg seen ko daal di rendi man ngaa njëkk rendi imam te ku njëkk rendi sa imam amoo tabaski kon loolu na ci bàyyi xel kon nit ñi nañu toog ba imam xutba ba noppi ba sëñ bi jotli kàddu yi muy jotli ba noppi imam rendi ko dem nag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 bàyyi lu xel itam bisu euh, arafa baax na lool di ko woor salaasam newoon na ku ko woor suñu doon daan la kafaaral bakkaari at mi weesu ak at ngay dëgmal kon njariñam bari na lool yow moo arafata nag ren ci nun mooy talaata ji muy juróom-ñeenti fan ci tabaski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 Eh, tasaare ci eh, jumtukaay xarale di wan ne yoomu arafa altine la waaye ci nun nag fii ci senegal moom yoomu arafa talaata la kon talaata mooy bis bi nga xam ne moom lañ taamu ku ko ku ci war kon loolu itam bokk ci li nga xam ne daa daa mata bàyyi xel eh, ci ci bis bi su ko defee nag jëmmi bis bi lañ ca taamu mooy taamu nañ ca sangu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 الحمد لله الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وشهدت بوجوب ذاته ووحدانيته الأكوان الواحد الأحد الذي ليس في ملكه هان الدائم الباقي وكل شيء سواه فان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأشرف بني عدنان أما بعد يا أيها الناس إن الليل والنهار مطيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قمود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في نوم الغفلة رقود فتأهبوا رحمكم الله وتلقوا سهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يجبله من الإجلال والتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العشر الأوائل منه فإنه أفضل أيام الدنيا بأسرها مسحولة بالخيرات والفضائل فاعمروها بطاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الهجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأغفاره أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله كما ينبغي بجلاله وشكر له على ما أولانا من سابق إفضاله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مدى بكور الدهر وآصاله أما بعد فيا عباد الله روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عشر ذي الحجة بعد صيام رمضان كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر wa an ibni abbasin radiallahu anhu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ما من أيام أفضل عند الله العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشرة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 fa inna duaa fiihi maziya axraja alimaamu malikun fi lmuwatta'i anna rasula allahi sala allahu alayhi wa sallam qaal afdalu duaai duaau yowmi arafata wa afdalu ma qultuhu ana wannabiyuuna min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 allahu akbar allahu akbar alhamdulillah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 allahu akbar sami allahu rabbana ذلك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين مالية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها Rosanna. asalaamaaleykum. asalaam. في وداع شهر رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان أراد الانصراف عني يوم الثلاثاء إليك مع أني لم أمل منه ولم أستغن عنه فوادعته بهذه الرائية راجيا أن تكون لي رحمة وربحا في الدنيا والآخرة فتقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واشهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم يا ذا البشارة بالآيات والصور لاشهد بكوني عبد المحسن الصور يا ذا البشارة بالآيات والصور لاشهد بكوني عبد المحسن الصوري لاشهد بكوني عبد الله فيك بلا غش ولاشهد بأني تبت من خوري سر ذا قفول لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا زلت ضيفا كريما قد يبشرني fi sirri wal jahri bil ihsaani daa bushari faja'tani yaa xaliili bis sururi hunaa bilaa idan fi turaabi fantafaa kadari فقلت والقلب مني طيب برضا عن الكريم البديع الصنع ذي القدر قد تبت للغافر الغفار من أودي وعنه أرضى ولي قد جاد بالظفر أسلمت كلي له عبدا له أبدا بما لي اختار في مكثي وفي سفري له شكوري في دار السلام وفي طوبى بذكر حكيم قد نفى ضرري سألته بعد عودي بالرضا لهما أن لا يلقى يلقيني شيئا من الغرر وأن يسلمني من كل مهلكة بالمصطفى من بمدحي والصلاة حريم wa huwa alxabibu alladi turja shafaatuhu bihi tawassaltu fi laylin wa fi saxarin wa man takun bi rasulillahi nusratuhu إن تلقه الأسد في آجامها تحري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من